Mamadou Diouf Mbengue ñu ngi lay nuyu. waaw ñu ngi lay fay soxna Elisabeth. voilà yow nga jiite ODCAV bu Rufisque tey jii Rufisque ñu di ko tudd euh, Ngalandou Diouf rawatina euh, mu bokk ci benn histoire tey bu ñuy wax ci wàllum nawetaan dina am euh, bu ñu bu ñu tuddee yenn yu mel ni stade Iba Mar dinañ tudd tamit Ngalandou Diouf tey nan nga jàngatee en tant que responsable li ni mel muy violence ci wàllum sport bi. wa merci euh, Elisabeth donc balaa may tàmbali rek mu profito si tribune bi jaale euh, Amadou Ndiaye bi ñàkk bakkanam si incident yi amoon altine stade Ngalandou Diouf di ko jaale ay mbokkam di ko jaale euh, sportif u Tëngéej yëpp di ko jaale président d'ASC yi di ko jaale aussi euh, le mouvement nawetaan mhm. donc di ñaawlu daf ci ñaawlu du yan lii xewoon stade Ngalandou Diouf mhm. ñun dañ jàpp ne sport dafa war a boole sport warul féewale et sport aussi ak violence ànduñu mhm. et que benn nit bu ñu xaañ rek dañuy jàpp ne mhm. rawatina doom aadama bu si ñàkk bakkan et muy loo xam ne ñun rafetlu ñu ko ñaawlu nañ ko ñu ngi koy condamné avec la dernière énergie maintenant Euh, nawetaan yi ñu ngi commencé au mois de septembre mm-hmm. bi ñuy doxal di doxal benn instant bi ñu tolloo si dóor toog yi gis nañ ne violence bi commencé na woon di nuyoo mm-hmm. pour gàttandu ko ñu arrêté def benn prégu juróomi fan woo ay say waxtaan ak ñoom mm-hmm. xamal leen ne bu ñu sensibiliser wu les supporters yi musiba mën na fi am ñu waxtaan ak ñoom waxtaan ak ñoom ba benn instant ñu reprendre bi ñuy reprendre aussi ñu waxtaan avec euh, les autorités en charge de la sécurité mm-hmm. muy mm -hmm. le commandant euh, du corps urbain du commissariat central de Rufisque mm-hmm. que ñu koy gërëm di ko sant aussi ci taxawaayam ñu ànd ñu xam ne jamono yi ñu ngi hiver mm-hmm. te hiver day teel ñu jël dogal de match yi dañ koy wàccee di ko football ci bëccëg ñuy football ñaari match quinze heures dix sept heures dix neuf heures vingt heures ñëpp ñëpp ñu def ko match quart de finale yi ñu gis ne aussi violence bi mu ngi ñëw mhm. parce que équipe yi ku toog ay supporteram bëgg a yàq mhm. ñu defaat benn taxaw seetlu waxtaanaat ci lañ ne équipe yi des ak match yi ni mu tol dayo bi mu am mënatuñu football ñaari match par jour mhm. dañuy football benn match ñu commencé ko quinze heures loolu lépp dañ koy def rek pour euh, yokk kaaraange gi yokk sécurité yi parce que mu jee si guddi gi mooy ëpp fitna mu si bëccëg mm-hmm. donc yooyu yëpp def nañ ko doyul le commandant du corps urbain ak euh, les présidents le zone ak le président de l'ODCAV mm-hmm. ñu jàpp maintenant veyu match bu ne wala jouru match bu ne Euh, zone bi organisé président bi day ñëw police ñu woo ñaari président ASC yi football ñu indaale seen président comité supporter mm-hmm. bu ko ñu toog avec le commandant du corps urbain ñu wax ku ne fi mu war jaar police escorté leen ba ñu ñëw stade si biir match bi ñu teg dispositif bi bu jeexee aussi police accompagner leen donc yooyu yëpp def nañ ko mm-hmm. réunion waxtaan jël ay itinéraire et que ñu koy door a gis aussi à Rufisque équipe di ñëw stade tey supporter police convoyé leen mm-hmm. pour dire que zone bi li mu waroon a def si euh, prévention police li mu def si prévention. Mhm. def nañ lépp ñu ñëw ba stade match bi di daw amul benn problème ñu football match bu jaar yoon mais bi bi mu tuddee yeneen supporters ne duñ ko nangu taxaw di sandi di déconné xeex ak force de sécurité vandaliser stade bi yëpp loolu yëpp dañ jàpp ne bokkul ci sport mhm. loolu yëfu bandi la c'est du banditisme mhm. yëfu vandal la yëfu def lu la neex la yëfu inconscience la sax à la limite dëkk ci dëkk stade ñu xam fi ñu jógee pour am stade bi ñu ñëw parce que gagné nañ leen mhm. ñu taxaw yàq lu ñëpp bokk dama jàpp ne loolu dëkk bi dafa am yoon et je pense que am na procédure bu ñu tijji te force de sécurité yi ak les services compétents yi yor dossier boobu danañ doxal li ñuy doxal mais ñun bi ñu gisee loolu. ci mhm. guddi mhm. ñu yëg ne am na benn doomu aadama bu si ñàkk bakkan ñun na aussi dafa am suñu responsable fu mu yem ñu jël dogal dàkkal nawetaan si département de Rufisque. Mhm. ren dàkkal nañ nawetaan pas provisoire arrêté nañ ko définitivement si ODCAV de Rufisque. d'accord pour ren. Mhm. après nag le président ONCAV El Hadji Amadou Kane génn mhm. baaxal arrêté nawetaan yi provisoirement c'est région de Dakar mhm. mais li ma la mën a wax mooy au niveau de Rufisque ci département bi dakkal nañ nawetaan ci at mi euh, léegi yéen kon bu ma leen déggee ngeen wax am na benn procédure judiciaire euh, ngir situer responsabilité yi loolu euh, kii la nu mu tudd service compétent yi comme nee naa la dëkk bi dafa am yoon donc ñoom ñu ngi def li ñu war a def mais ñu suñu wàll nawetaan mm. dañ jàppan jotagul ñuy jël ay sanctions wala di jël ay daan teg ko ci kaw ñu ko def parce que dañ am une responsabilité boo xam ne aussi stade bi mm. dañ ko war a taxawal dañ yàgg aussi dugal suñu loxo si euh, stade bi jëm kanam mm-hmm. parce que dara aussi ñi koy utiliser bu ñëwee fekk ko ci yenn anam ñoo ko war a defar mm-hmm. yàgg nañ si def suñu loxo ñeneen ak ñeneen aussi yàgg nañ si def seen loxo mm-hmm. mais mbir mi bi mu amee jël nañ benn huissier mu ñëw constater les dégâts mm-hmm. huissier bi mu paree maanaam grille de protection bi dafa am fan wu quinze mètres bu xaw a daanu woo nañ menuisier métallique mu defal ñu devis ñu ngeeg devis bi mm-hmm. euh, sanitaire yi dañ ko vandaliser woo nañ benn plombier aussi moom mu defal ñu un devis ñu téye ko mhm. verre yi fa nekkoon aussi dañ ko tojet woo nañ aussi un vitrier mu ñëw defal ñu devis dajale nañ devis yëpp boo ko xayma war na toll si presque juróomi million léegi ñu commencé di def liggéey bi di réparer dégâts yi mhm. presque jël nañ euh, la une bonne partie de la grille de protection remettre nañ ko en état mais si fan si liggéey boobu mhm. lañu euh, kilifay maire bi aussi fekk état yónnee ñu euh, ndaw xamal ñu ne bon nañ arrêté li ñuy def parce que ñoom aussi dañ commettre benn ici huissier nañ bàyyi ba ñoom bu ñu paree mhm. peut après ñun ñu yeggali ñu taxaw pour dire que nawetaan day participer si li nga xamante ne aussi moo fi am comme infrastructure nekkuñu fi pour di yàq uh-huh. que avant dégâts yi à chaque fois bu ñu soxlaa stade bi bu ñu ñëwee war a commencer nawetaan uh-huh. lépp loo xam ne gis nañ ko muy manquement ñun dinañ ko euh, matale bi li amee aussi uh-huh. ñu ne ay def ay rapport pour sanctionner jotagul parce que dakkal nañ nawetaan yi ren donc stade bi dafa war a taxaw si noonu lañ jëlee dogal boobu di liggéey mbir moom donc à titre personnel ODCAV bu Rufisque portewul benn yoon plainte autorité compétente yi ñoo autosaisiru ci mbir mi tey ji euh, ODCAV bu Rufisque fan la degré responsabilité mi ci mbir mi waaw xam nga ODCAV de Rufisque hmm. maanaam lépp luy wàllu nawetaan si département bi euh, moom moo moo hmm. maintenant dafa am ay zone yoo xam ne ñooy organiser mm-hmm. mais bu ñu jëlee zone bi doon organiser keroog le match ñun jàpp nañ ne zone boobu mm-hmm. li mu waroon a def yëpp def na ko xam nga nit aussi dafa am loo xam ne mooy li ne à ta portée li nga mën a def mm-hmm. ñoom def nañ lépp match bi programmé nañ ko quinze heures dañ na leen noonu pour des questions de sécurité match yi dañ ko indi ci bëccëg gi mhm. ñu def match bi si bëccëg gi ñu ne football leen benn match ñu football benn match mhm. ñu ne leen match bi équipe yi dañ populaire ñu woote police réunion technique président ASC ñëw toog président comité supporter yi ñëw toog zone bi ñëw toog ñu ne leen équipe bi fii lay joge fii lay jaar ba yegg stade mhm. équipe fii lay joge fii lay jaar ba yegg stade ñu ne euh, police na leen escorter police escorter leen. Hmm. ci biir stade bi ñu teg dispositif sécuritaire ñu ubbi ñaari bunte yoo xam ne dañ soriante hmm. ñii dugge fële ñii dugge fii ñu séparer stade bi en deux parties donc man dama jàpp techniquement et humainement zone bi li ñu doon def yëpp def na ko lii am aussi hmm. bon sabotage la parce que du football match boo xam ne amul benn problème ñu dugal le plus nga ne doo ko nangu wàcce di sànni xeer man dama jàpp zone bi. foofu mënuñu wax ne elle est responsable de quoi que ce soit ni l'ODCAV xale yi ñoom lañ war a yar te engagement yi nit di jël bu ñu toogee autorité policière yi buñ ko jëlee nañ ko wéyalee nañ ko respecté mhm. ñun dañ gis ne problème mu vandalisme banditisme sabotage mhm. moo amoon keroog ngalan mhm. te yu mel noonu nag je pense que buñ ko bëggee natt bëgg ko xool dañuy xool sori fu xóot mais zone bi pour man amu si benn responsabilité parce que li mu doon def yëpp def na ko. Mhm. ku ñëwoon stade seetaan dina xam ne réewanda ñàkk éducation jox pour saboter moo fa amoon. li xew keroog euh, ñu bëri mer nañ ci euh, boo déggee sax après kàddu yi jógee ci rajo yu bëri ñenn ñi naan dañoo war a sax dakkal nawetaan définitivement ndax yow li ni mel ànd nga. waaw mais xam nga loolu aussi ki koy wax mooy ki xamante ne amaana dafa am problème ak nawetaan <laughs> mais no mais moo am parce que bu ñuy waxante dëgg te dëgg rek tax non dama nawetaan am na violence mais yeneen secteurs yi am nañ violence marché bii passé ñaata nit ñoo ñàkk bakkanam lu xewoon te pourtant li xewoon ñu ngi koy continuer di ko wéyee kenn lañ dakkal que bon dans l'histoire du football bon incident bi ëpp nit yu ñàkk seen bakkan mais ban sport la woon ban niveau la woon ban championnat la woon ñun nag Sénégal lañ def mhm. nit ñi nañ bàyyi di def ay procès d'intention du nawetaan c'est pas parce que dañ bëggoon bokk ci nawetaan mhm. boole ñu leen ci c'est pas parce que dañ ci nekkoon ñu génn leen si ñu bëgg a taxaw bëgg a def la procès du nawetaan. kon daal jàpp nga ne c'est un personnel ñëpp ñi koy wax. mais ñi koy wax ñu ay euh, sportif sax. no mais mais sportif mais un sportif. mais les incidents de Mbour Wakaam bi mu amee. Mhm. tas bi mu indee la lu tas wax. Mhm. tas daf na intégré leen Wakaam intégré nañ ko mu ngi football. Mhm. ñaata nit ñoo ñàkk bakkanam dañ si teg tuuti on a repris le championnat mais championnat yooyu chaque jour ligue daaw daaw jéeg violence dafa feeñ c'est-à-dire nag violence bi du mbiru sport du mbiru football du mbiru nawetaan violence bi si société bi la ne. donc problème bi société la daal mais ay ay ay ay ay Gambien ay Togolais dafa ñu violence bi c'est des Sénégalais qui le font. Mhm. même marche bu amee sax day am violence day am euh, ay gaz lacrymogène étudiants yi bu ñuy manifester day am violence. d'accord la politique il y la violence. madame mhm. il y la violence partout dans les secteurs sénégalais. d'accord tey jii monsieur Mbengue ndax jotul ah. ñu xoolaat nawetaan yi parce que kat nawetaan bu njëkk ba wax nga ko sànq mm. yow daan nga joué nawetaan mais jamono jooju mën nañoo gis ne nawetaan neexoon na lool da doon doon benn activité bu attractive euh, da nga ci daan gis ASC yi mu ci am ay théâtre ak yeneen ak yeneen yi nga xam ne wax dëgg yàlla ñu bëri dinañ ci gis seen bopp mais tey dafa mel ni football rek euh, moom la ñuy méngaleeg nawetaan. waaw d'accord naa d'accord naa mm. noonu. c'est le sport roi lu mu nekk da lay mm. maintenant dama d'accord ak yow mais bu njëkk ba mm. mais ban type d'éducation lañu daan recevoir dans nos écoles mm-hmm. bu njëkk ba bu njëkk ba étudiants yi mm. ban comportement lañ amoon bu njëkk ba nit yi sénégalais yi nan lañ daan boole àdduna ak nan lañ daan dundee mm-hmm. entre bu njëkk ba ak léegi mondialisation bi ak mutation bi dafa changer no comportements ñu war a repenser nag la société sénégalaise man loolu laa parce que ce qui était valable en mille neuf cent quatre vingt six wala en quatre vingt quinze actuellement ne l'est plus parce que dafa am une jeune génération bu ñëw et jeune génération boobu aussi bon seen tranche d'âge boo xoolee c'est quinze et dix huit ans mais ñooñu bi ñuy xalaatee ak ni ñuy gisee mais dafa méngoo ak ñun bi ñu amee âge boobu duñ doon xalaat ak ni ñuy gisee moo tax man xamal la ne pour man mm-hmm. le mal est beaucoup plus profond c'est un problème de société un dañ war a xoolaat l'éducation de nos enfants mm-hmm. dañ war a xoolaat aussi la prise en charge de la jeunesse et que violence bi ngay gis mm-hmm. ci nawetaan yi moom ngay gis si làmba ji moom ngay gis ci championnat de lutte moom ngay gis ci politique bi moom gay gis ci manifestation yi moom ngay gis ci marché yi moom ngay gis un peu partout dans le Sénégal moo tax nag d'accord naa nawetaan nañ dafa gën xoolaat fi mu toll ak fan la war a jëm mais xalaat supprimer ko bon Sénégal yi de ñooy def na parce que man damay woote rek ñëw nit ñi fekki sama eh. leen transport yóbbu ma leen fii car indi ñëw ne dañuy bokk di jël seen alal di ko investir mm-hmm. donc ñooñu bés bu ñu taxawee ñoom ñëpp ne bokkatuñu lii amaluñu njariñ mais ñu arrêté et que gis nañ ne bon bu ñu gis violence bi rek bëgg def la procédure nawetaan. d'accord pandémie bi bi mu fi amee avec les vaccins et tout ça la sensibilisation ah, le la bataille communautaire. Mm. mais le Sénégal l'a remporté grâce à l'implication des ASC au niveau de la base. d'accord man daal dama jàpp ku si bëggoon bokk ñu ne ko doo si bokk wala ku si nekkoon ñu génn ko ñooy taxaw si média yi ci télé yi di wax mais nañ dem dans leur quartier ku ne si quartier la dëkk. ku mën a wax ba sa ASC quartier bàyyi wetaan rek na wetaan du amati. mais yow xam nga ne yéen nit ñuy wax ku ne si quartier la dëkk te quartier bu ne am na man nañ dem dans leur quartier ñu éliminer seen ASC yi ku ne bu ko defee affaire yi jéeg. mais mënoo ne si kaw di attaquer nit ñi di leen bo bo bombarder loolu tagul man. Le problème, ce n'est pas un problème de navetan, le problème, c'est un problème sociétal. Et qu'il faut repenser l'éducation de nos enfants, la prise en charge de la jeunesse qui n'a plus d'espoir par rapport à son avenir. man noonu laa gisee problème bi. ñu lay jaajëfal bu baax a baax sëñ bi Mamadou Diouf Mbengue. merci.